naan dangeen di lim sama xéewal yamaleen xéewalal du ngeen ko musa peeg du ngeen ko musa dajal du ngeen ko sax man waaye lu fi nekk mooy doomu aadama de day di mbindaafoon ba dëkkee di tooñ boppam waaye daa nekk mbindaafoon ba nekk di weddi xéewalu yàlla yi su ko defee ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanuk jàmm ñu ñaan ko mu may ñu kendaluk jàmm ndax bis ni tey di yowmul jumaa mu doon bisu ajjuma mu nekk bés bi nga xamante ne mooy afdalul ayam mooy gën si bés yi ci bés yi nga xamante ne mooy bés yu jant bi di fenk mu nekk bés boo xamante ne bés bu am dayo ci njëlbeenu bés bi mu nekk njëriñ bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadisu abdullahi bun umar radiallahu anhu sallallahu alayhi wa daf ñu jox kado bu toll ni xam-xam ba ñu war a mën a tijjee ubbee duggee ko suñu bés bi nga xamante ne mooy yowmul jumaa mu ne ñëw ci hadisu abdullahi bun umar radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal afdalu salawaati inda allahi salaatu subhi yowma aljumcati fi ljamaati xadisun saxix axrajahu albaani fi saxix aljaamia mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee xadis ba nga xamante ne moo nekk uh, ci ngëneelu arjuma bés ni njëlbeenu waxtu ya jullit yi doon joxe ci jàkka ji ginnaaw bu ñu déggee noddukat bi di noddu ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة aati sayidina muhammadin alwasilata walfadila wa darajatan aliya rafia wa baathu llahumma maqaman mahmuudan lati waatahu innaka laa tuxlifu almiaad mbokk yi képp ku dégg nodd bi ci waxtuy fajar nga jóg yeeslu nga laab séq ab jéego dem joxe waxtuy fajar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ci xadis bi ci ci fekkee julli fajar julli suba ci bésu àjjuma ci mbooloo moy jëf moy waxtu yu julli ba gënal yàlla moo tax mu ne afdalu salawaati inda allah gën ci waxtu yu julli fa yàlla salaatu subahi mooy julli suba yowmul jumaati bésu àjjuma comme la jullit yi doon def waxtu ci néew ci ginnaaw rek fi jamaa ci mboolo waxtu yu julli suba yowmul jumaa ci mboolo yonent bi nee jëf jooju jëf ju neex yàlla la waxtu bu yàlla fonk la fa moom subhaanahu wa moo tax bu ñëwee xool ci xadiisu an aws bun abi aws radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa qaal inna min afdali ayaamikum yowm aljumaati fakthiruu alayya min alsalaati fiihi fa inna salaatakum macrudatun alayya xadiisu saxix axrajahu albani fi saxix abi daawud mbokk yi yal na jaami yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ci xadiisu abi aws bun aws radiallahu anhu saxaabe bi nee na naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu inna min afdali ayaamikum bokk na ci bés bu gën ci yalen yaleen di ganese bés bu gën ci bés yi bés bi gën ci bési àddina yay ñëw di dem ak a ñëw yenentu bi nee na gën bés yi mooy yowmul jumaa mooy bés ni ki di yomul jumaa bésu àjjuma sallallahu alayhi wa sallam fa akathiru ngalla way na alayya ci man mina salaati fiihi li ngeen di julli jëmale ko ci sama jëmm ji ndax fa inna salaatakum julli boobu ngeen di julli ci man yonent bi ma maarudatun alayya dañ ma koy gaaral dañ ma koy jébbal na ngeen baril la ngeen may jox kado na ngeen baril la ngeen may jox kado kado bi nag du kado ye miin kado ba yonentu bi ne na ko xeetam gëna a baril yit ko ko jox ko ko ko ko mu doon yóbbante ba ngay yóbbal yonentu bi bés ni ki tey nañ leen baril di wax allahumma solli ala sayyidina muhammadin buñ ci munee teg beneen ba nga xamante ne mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin kama salayta ala ibrahim wa ali ibrahim allahumma barik ala muhammadin wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim bu dee mun nañ ci teg fil aalamiina innaka majid ba léegi baax na waaye ala kulli xaal nañ leen bokk di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di bëril di wax ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin ndax buur yàlla tabaraka wa ala buy gaaral yenuntu bi kado yag ko xeetam yóbbante yow ko def dañuy bind sa dañuy bindi sa tuur ci salaatu ala nabi ba nga gaaral yenuntu bi yowmul jumaa buñ ko koy jox nag ñu ne ko jaamu yàlla fulaan di doomu fulaan ah moo la kado bi allahu akbar yóbbante kado boobu ci yenentu bi nag njëriñut yenentu bi dara dara dara contraire yow lay njëriñ keroog bis pénc buñ lay paayeseel say jëf say yi buñ koy peese ñu di ko natt ñu ne julli yaa ngi nii xaw nañoo sooxe leneen laa ngi nii xaw nañoo sooxe da doon def lii da doon bàkkaar lii làmmiñam bi da doon bàkkaar bëtum da doon bàkkaar moo ne est-ce que daanoon na juli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah daanoon na ko doon def waaw bisu àjjuma de daanoon na sellal xale bu jigéen bi bisu àjjuma daanoon na sol lu jot daanoon na sellal daanoon na simi greffage bi daanoon na bañ a teg lu ñuy teg si bopp yi daanoon na bañ a poose la ñuy yokk seeni yaram yi daanoon na bañ def lu bokkut si moom da doon sellal da doon yore lu muy toj toj di julli ci yonent ñu ne andi leen lam doon julli ci yonent bi andi leen ko ngeen sotti ko ci balansu peesukaay jif bañ koy peesal est-ce que imagine nga bu ñu jëlee salaatu ala nabi ba nga doon tudd ba nga doon julli ci yonent bi ñu jël ko sotti ci sa balance peesukaayu jëf wallahi keroog ngay xam ne julli si yonent bi mooy li wóor sallallahu alayhi wa kon yow sama sœur yow sama frère nañ leen bokk di géema góor góorlu di julli si yonent bi jafewul allahumma salli ala sayyidina muhammadin allahumma solli ala sayyidina muhammadin boo ci tegee nabiyul ummi baax na boo ci tegee wa ala alihi wa sahbihi baax na boo ci tegee kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim baax na waaye nag na nga jël salaatu ala nabi mu doon sa singo mu gémmiñ na nekk sa gurawu gémmiñ na nekk sa pitakolaawu gémmiñ fu ñu la gis yowmul jumaa na sa ñaari tuñ yi di pat pati allahuma salli ala sayidina muhammad allahuma salli ala sayidina muhammad ne waaw waa ji moom lu muy wax ne nga yëkkati sa baat ci kaw ne allahuma salli ala sayidina muhammad waaw kañ nii la su ko defee nga wan ne yow yaa ngi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi moo ko wax bés bu gën ci bés yi mooy yowmul jumaa moo tax mu ne ñu inna min afdali ayyaamikum bokkoon na gën ci bés yaleen di ganese mooy yowmul jumaati bésu àjjuma mooy bés ni ki tey yonent bi nee na waxu na ngeen julli si mande dane fa akthiru fa akthiru na ngeen bëril nu mu bëree doyul nu mu bëree sallallahu alayhi wa allahu akbar mu ne fa akthiru ngalla waaye na ngeen bëril alayya min assalaati fiihi na ngeen bari la ngeen di julli ci man na bari la ngeen di tudd allahumma salli ala sayyidina muhammadin na ngeen bari la ngeen di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin na ngeen bari li ngeen wax seeni gémmiñ seeni làmmiñ li ngeen di wax bari na lool surtout surtout ñun waa askan bi ñun ñii waaw ñun moom lu ni kur ñu wax si giix te loolu amuñu lu dara si xeetu solo bu ñu amalee solo tamit njëriñ bi taxu ko bëri waaw nag lañu amal njëriñ nag mu ngi ni dañoo géem a nekk xeet woo xamante ne loolu na ñu wax ko loolu na ñu commentaire ko waaw yonent bi nee na yomul jumaa nag na ngeen tegandi seen commentaire yu éphémère yi moo ko wax waxu ko moo ko def defu ko moo fa dem demu fa moo ko mel melowu ko ila axirihi yonent bi nee na na ngeen bari la ngeen di julli ci man yowmul jumaa xanaa commentaire yu éphémère yi war nañ ko war a mën a teg yowmul jumaa ah, ah soxna Mari nañoo mën a teg commentaire yu éphémère yi yowmul jumaa ñu jàpp ci salaatu ala nabi ah? ndax yonent bi nee na fa akthiru alayya min assalaati fiihi la wax sallallahu alayhi wa sallam bëril leen na ngeen bëri lu doyul ci li ngeen di julli ci man te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ñàkk def tamit wàññiwu ko dara ndax yàlla moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak mboolem malaaka yi ñu ngi nekk benn bloc boo xamante ne dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon yow benn individu bi nga xamante ne boo ko bañee def lu koy wàññi boo ko defee lu mu koy yokko au contraire yonent bi dalaa nama liiw rek moo tax mu ne leen mu ne ñu na ngeen bari la di julli ci man ndax yàlla ak malaakaam ñu ñuy ñaanal ku ñuy ñaanal na kooku soxlaatul beneen ñaan non kooku soxlaatul keneen di ko ñaanal waaye boo gisee mu boyal ko mu ne ñu na ngeen bëri la di julli ci man daa bëgg ñu ñu am yiw woowu yàlla ne inna allaha naka yàlla wa malaikatuhu ak ay malaakaam yi yu salluuna dañuy jokk yu na dañuy ñaanal yu salluuna dañuy sàkkul yonent barke yiw xéewal kon yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi yéen it na ngeen def ni ñoom wa sallimu taslima ngeen ñaanal ko yàlla muccu bu ànd ak xéwal ñaanal yonentu bi yàlla yàlla dottil ko mucc bu ànd ak xéwal léegi ngay ñaan yàlla mu defal yonentu bi mucc xéwal yonentu bi nee képp ku ma ñaanal mucc xéwal benn yàlla dina ko dottil fukki yoon képp ku ñaanal mucc ak xéewal yàlla dina la ko dottil fukki yoon ku ko def fukki yoon yàlla defal la ko téeméeri yoon boo jullee ci man téeméeri yoon yàlla julli ci yow junne yoon kon salaatu ala nabi ba ñuy wax yowmul jumaa ak yeneen bis bu dee am na meññeef bu dee am na résultat résultat bi ñu na ñun ñoo koy bénéficier wu bu dee am na meññeef meññeef bi ñun ñii ñoo koy witt bu dee lu ñuy jëfandikoo la ñun ñii ñoo koy jëfandikoo trace bi mën naa feeñ fii ci dund àddina waaye bés pénc lañ la fay moo tax buur yàlla ne ñu inna allaha naka yàlla wa malaikatahu ak malaakaam yi yu salluuna dañuy bokk di ñaanal ala nabi yenentu bi sallallahu alayhi wa kon yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi na ngeen doon ñu kii sàkku yiw boobu fa yàlla wa sallimu tasliman ngeen ñaanal ko mucc xéwal lu koy firndeel mooy waxu boroom xam-xam bu mag boo xamante ni daf ñu bëgg a woon lañ fi nekkee ci àddina ak par lañuy dem nekki jee àlaxira ëllëg bis pénc tax mu ne ñu adduniya daarul amal wal axiratu daarul jaza fa man lam yaamal huna nadima hunaaka imaam ahmad bun hambal rahimahullahu taala rahmatan waasia imaam ibnu hambal rahimahullahu taala rahmatan waasia moo ñu ne adduniya xam ne àddina bi ñu nekk di dundu de daarul amal kiru liggéey la wal axiratu alaxira de fa ñuy jëm gannaaw bu ñu faato ba ñu dekki kër googu ñuy dekki jee fa yàlla di alaxira mu ne ñu daarul jaza muy këru peyor ba moo tax ngay jàng fatiha ne ko maaliki mi diin buuru bésu peyor ba du kenn yàlla dong la moo tax imaam ahmad bun hambal mu ne ñu wal axiratu al de daarul jaza kiru payoor mu tegtal ñu mu ne ñu fa man lam yaamal xuna képp ku fi liggéeyul nadima xunaaka di nga rëccu fele fee ñuy jëm di nga riccu la tax ngay riccu parce que liggéeyuloo fi lu tax ñu di la fay foofu kon fii kër la fa ñuy jëm kër la kër bañu nekk fii di duniya këru liggéeyukaay la moo tax mu ne daarul amal àddina këru liggéey la fa ñuy jëm kër la bon kër la moo tax mu ne ñu wal axiratu daarul jaza alaxira de këru payoor ba la léegi nag yow mi fi nekk yaay dem fee yow mi nekk ci kër gi fii yaay toxu def rihla def long voyage wala def intiqaal toxu jóge ko fii dem fee kon li fi nekkee durant bi nga fi nekkee xamal ne kër gi nga nekk ñu appal la fi ab app liggéeyal liggéeyal la tax nga war a mën a sàkku peyor bi fee nga mun a tàllal sa loxo ñu fay la lang fii liggéey masalaan mun nañ koo komanteer ci waxtu su niiw rekk képp koo xamante ne jën nañ la ci benn service ñu ñën la fa contrat moo xam signé luñ la mais accepté nañ la rek kaay nga ñëw liggéey ak ñun nga nekk foofu di liggéey waxtu bi jotee nga ñëw nga pointé comme na ko waa kër gu mag bi di ko defee macha allah yal na yàlla suqali daara borom kër gi ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla sama arko ak mboolem personel yi fiy liggéey waaw ma jël ma jël ma jël exemplaire bi fii rek waaw gars yi di ñëw di mentionné soxna Mari bu dee noonu la gars yi di mentionné di bind waaw gars di bind ñuy dugg ñuy bind léegi nag bu weer bi dee. sama góor gu baax bi daal di woote ñoo tàllal sa loxo ñu jox la lañ fi doon liggéey hakaza nii lañ koy comprendre sahl c'est très facile waaw mu ne ñu adduniya àddina daarul amal kéeru liggéey la walla axiratu daaru jaza alaxira di kéeru payoor la fa man lam yamalu huna képp ku fi liggéeyul nag na di ma hunaaka di nga fee képp ku bañ a rëccu fee da liggéey fii nga dem fële ñu fay la waaye képp ku fi liggéeyul defoo fi dara liggéeyoo fii nga dem fële duñ la fayte su boobaa da rëccu su boobaa da ngay rëccu kon bokk na ci la tax ñu di fi mën a liggéey yonent bi tegtal nañu waxtu yoo xamante ni day ñëw di jaar di jàll ci suñu dund bi tout le temps tout le temps waaye est-ce que yow en tant que jullit yaa ngi bàyyi xel bu dee waaw fa lillahi alhamdu wal minna ñu sant yàlla ci xéwal boobu bu dee déet mais ñu nopp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar fii ñu waxtaan ak yow ci waxtu nga xamante ne moo ngi nii di dëgmal si bii paase na am na beneen buy ñëw waxtu si cher waxtu bu neex a xaar waxtu woo xamante ne du jaas dina ñëw bu la fi fekkee nanga exploité qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna du'aa la yaruddu bayna al azani wal iqaama fad'u fad'u fad'u yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñaan baa ngi ni kenn du ko delloo dañ koy accepté waxtu saa ngi ni képp ku fa nekk di ñaan yàlla yàlla day accepté sa ñaan da koy nangu kenn du delloo ñaan boobu kon bul ñu sàggane bu leen sàggane bu ma sàggane yéen bu leen sàggane keneen kii bum ko sàggane nañ leen exploité waxtu boobu mu ne inna du'a la yarud inna du'a la yurad bayna al azani wal iqama fad'u waaw waxtu saa ngi nii waxtu soo xamante ne kenn du fa nekk di ñaan yàlla lu dul yàlla dina nangu lankay ñaan waaw mu diggante noddu ak liqaam ñu nodd ba pare ba keroog ñuy liqaam waxtu su néew soosu ruq su ndaw soosu talalal sa loxo jéggalal say bàkkaar sàkkul yàlla baalul yàlla mu jéggalal say bàkkaar wax ko say mëbét bu di xale bu jigéen nga set nga setoo xamal ne bu ñu noddee nekkal ci position bi nga xamante ne dangay ñaan yàlla ba keroog ñuy liqaam waaye nekk ci leneen yow xale bu góor bi bugga a projet bi bugg a liggéey bu bugg ba bugg ñaanal yàlla moment bi surtout bu dee dalaa fekk ci jàkk ji noddukat bi nodd fekk yaa ngi toog ci jàkk ji mu pare noddu nga talal sa loxo ñaan yàlla bi keroog waxtu ñuy liqaam diggante noddu ak liqaam daal yonent bi nee na waxtu su gàtt la ruq su ndaw la soo xamante ne amul kenn ka fay ñaan yàlla lu dul yàlla dina nangu sa ñaan kon bi léegi lii bokk na ci liggéey boo xamante ne fii nga koy liggéey ëllëg bés penc ñu fay la ko mbokk yi ñu tàbbandoor ak yéen ci suñu formation ba suñu yonent bi doon formé sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ak yéen ci formation bu ñu jël ci centre formation bu ñu yonent bi doon formé sallallahu alayhi wa sallam anam jikko bi nga xamante ne noonu la tuut tànk bi di war a comporté woo ci kër gi wala noonu la war a comporté woo ci askan bi wala ci pënc bi ñu ngi yemoon ak yéen ci juróomeelu bunt bi te mooy yaakulu mimma yalihi ci xadiisu yaa gulaam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yaliq rawahu buxaari yow xale bi na nga lekk sa loxo ndeyjoor te nga lekk la féete ci sa kanam te balaa ngay lekk na nga wax bismillah hadis bi buxaari moo ko solo fa ñu taxawoon tey incha allah bi iznillahi wa bi tawfiqihi fas yéene nañoo ñëw ak ci juróomeelu bunt bi di al aklu bi salaasa asaabia yonent bi daanoon na jëfandikoo ñam ci ñetti baaraam yi nga xamante ne fa la doon tàbbil euh, ci ñetti baaraam yi nga xamante ne loolu la doon tàbbil ci ndab li mu ko jëfandikoo ngir mu di ko lekk li xadiis kaab bun malik salami qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa bi salaasa asaabia waaw xadiisu kaab bun malik assulami nee na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na bu doon lekk loxom la doon lekkee loxo ndeyjooram waaye ñetti baaraam yi la doon jëfandikoo ñetti baaraam yi waaw ñetti baaraam la doon jëfandikoo bu doon lekk bi maanaam du jël loxo bi yëpp taqal ko comme ñun waaw gars yi ñi ma xam nu ñuy dànkee ceeb dànk ko taxañ ko taxañ ko dànk ko après daal di ko jëfandikoo yonent bi daawul jëf noonu ñetti baaraam la doon jëfandikoo moo tax mu ne way yal aqu yaddahu qabla an yamassahuma waaw da doon da doon da doon da doon da doon ñaari baaraam yi mu daal di ko jëfandikoo maanaam Euh, baaraamu baaraam bu mag bi ak baaraamu sànnikaay bi ak baaraamu digg bi da doon jëfandiku après mu di ko mu di ko mu di ko mu di ko lekkee waaw waaye yulciqu yaddahu qabla an yamassahuma waaw noonu la ko doon defe waaw ñetti baaraam la yonent bi doon jëfandikoo bu ci paree nag da koy mar ba mu set après mu doo ko raxasu sallallahu alayhi wa sallam waaw lekkee ñetti baaraam yi ba pare lay wone màndargaay ne kii pare na yonent bi pare na ci la muy jëfandikoo ci ñambam doon jëfandikoo day jël temps virgule ab waxtu su néew muy mar ñetti baaraam yooyu di ko mar mar ko ba mu set ba mu ko wóor ne la taxoon ci ñitti baaraam yi mar na ko ba set na mu doogu kaa raxasu waaw jikko yooyu la fekk suñu maam yi di ko def gis góor góoru yàlla ba nekk ci kër gi mu nekk kilifa bu jëfandikoo ñam ba pare day mar loxo bi ba pare waaw tey jii fi nekk di marsa loxo génération yu bees yi day doon lu bees si ñoom lañ daan kii suur mar loxo sa te te te mar loxo ah boo lekkee si kir goo xamante ne comprendre ñu mar loxo dafa bokk ci njàngale yonent bi boo ko maree dañ naan kii suur gisuloo muy mar or que mar loxo da yi yonent bi ci jamono bu muy mu noppee ci jëfandiku ñam ba doon jëfandiku waaw incha allah du ñàkk bu ñu delsiwaatee dinañu andil dinañ leen andil juróom-ñaareeli buntu bi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 jumaa tayba mubarak nasalullah an yataqabala minna wa minkum salih al amal wa kullu jumaatin wa antum bi xeyr allahuma amina fi awtaanina wa aslih aimmatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi fas biladina min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasmaun baraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafaani allahu wa iyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu